asalaamu ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ziyaaro ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di balu àq ñu ngi leen di masawu coono ndax xam naa wolof mooy faral di tudd baat coono yiw ndax coono ñaar rekk la sonn ci lu ko jarul ñu tuddee ko coono waaye sonn ci lu ko jarul ëpp na di coono waaye ku xam notion du nga xam ni sonn ci lu ko jarul tuddul coono waaye fitna la tudd ndax nahaari jidaalun wa laylin jidaalun wa xawli rijaalun ala mithli xaali mel na ne loolu du coono waaye fitna la ak sonn ci loo yaakaar yiwu yàlla waaye sonn ci loo yaakaar yiwu yàlla nag bu ñu ko tuddee coono yi xéewalu yàlla la moo waral Sayid Cheikh Ahmed Tijani sama turandoo radiyallahu taala anhu daanu wax ni innama al adaabu fiina niam ndax taabul aakili laa basa bihi taabun maa tashtakihi l umamu taabul maashi wa fi lmashi ridan fa kama taxya bi daaka alqadamu kullu cheyin fi lqadaya xikmatun tatawaala fi daraha xikamu qaddiri l ashyaa wa xaasib kullaha yataraa laka fiha alamu wasali l asrara an masdariha wa limaada fi lxima tuxtaramu biridan tudriku ma fi dimniha kon nag ayuha almuslimu daka alkaramu waaw waaw mu mel na sonn ci loo yaakaar yiwu yàlla bu dee coono yi xéewalu yàlla la te tabarakallahu suñu coono bi ñu ngi ci yaakaar yiwu yàlla kon lépp lu ñu ci yaakaar rekk yàl na yàlla defal ñu ci lu gën a kawe suñu njort ñu di leen nuyu di leen ziyaara tabarakallahu di leen ndokkeel ci ngoon gi nga xam ni damay wax ni ngoonu sayid cheikh ahmed tijani la asharifu alfatimi ndax ñetti xaqaayiq yi nga xam ni Seyid Cheikh dajale na ko ci benn ngoon xam naa ni sax dinañu ci dellu si waat waaye mu mel na Seyid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu xam naa la Sëriñ Babacar si waxoon radiyallahu taala anhu ca keroog ba mu koy décrire ci talaat lana shamsul huda kushifat dusha liman ihtada waaye lam ca teg mooy anil humaam al mubaad al marma waqad balaga al mada Seyid Cheikh Ahmed Tijani doon koo xam ni soxlawul ku ko tuddal xar baax ndax Sayid Cheikh Ahmed Tijani yitteem doy na cër waaye yitteem nag dangay xam ni waa walil waarisi malil mawruus yitte ja dafa am fu mu ko nàmpe te mooy ci maamam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga sayid cheikh ahmed tijani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi koy nangu par rapport ak yonent yi ndax yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kooku ustaad Mbay Jóob xam naa buñ ko mënoon a indi rek tabaarakallaahu suñu wayjuru bopp al ustaad Mbay Jóob suñu wayjuru bopp al ustaad Mbay Jóob tabarakallahu ñëw ànd ak suñu lépp bopp Mouhamadul Mansour Fall tabarakallahu bi nga xam ni moo yor MJ ci niveau Louga waaye di borom taxawaay ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di dalal maanaa li ñu doon wax yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko nattee par yonent yi ci ngay xam yitte yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu toll ndax yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu bokkee ak yonent yi mission it yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak yonent yi objectif ndax yonent yi seen objectif mooy atteindre alxaayaat waaye yonent yi bi seen objectif nekkee atteindre alxaayaat yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom objectif am romb na atteindre alxaayaat bi yonent yi visé alxaayaat yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom li mu visé mooy ajal aqsa min alxaayaat les prophètes ont visé le sommet et le prophète a visé l'extrémité moo tax fa ida min ulaaka al alaau kayfa tarqaa ruqiyaka al ambiyaau moo tax yonent yi ñu seddi leen ci raayaat bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu seddu ko ci nihaayaat yonent yi bi ñu jëlee alxaayaat yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom li mu jël mooy xaayatul xaayaat waaw kon nag yaa samaan maa taawalatha samaau lam yusaawuka fi ulaaka wa qad xaala sanan minka duunahum wa thanaau waaw ak na mu ko indee ca burtu waaw xatta ida lam tadaa sha'wan li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustanimi xafadta kulla maqaamin bilidaafati id nuudiita birrafci misla almufrati alcalami kayma tafuuza biwaslin ay mustatirin can alcuyuuni wa sirrin ay muktatami fa xusta kulla faxaarin gayra mushtarakin wa juzta كل مقام غير مزدحم وشل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم moo tax bushra lana معشر الإسلام إن لنا waaw waaw من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم moo tax si la grandeur du dessein la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois dimensions du génie de l'homme qui osera comparer humainement un homme de l'histoire moderne à Seyyiduna Mohammad les plus fameux n'ont remué que des armes des lois des empires Ils n'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Mais celui-là a remué des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. moo tax banaw lil wara qabla al maahidi kulliha awasima arwaahi بنور تشكلوا مخافة أن تبقى القصور مقابرا وما شأن قصر للحمار يسجل mu mel na kon ci góor googu ci la Abul Abbaas Ahmad ibn Muhammad Tijaani nampee ci moom yitte waaye xam nga Seyid Cheikh Ahmed Tijani yenn saa sax nga gis ñoo xam ni xëy na dañu koy jéem a jam danga leen di xawa a ñeewante li nga leen di ñeewante mooy sonn ci loodul am ndam xam nga Seyid Cheikh Ahmed Tijani dafa am lu ko yàlla dimbalee mooy la mu dimbalee woon maamam yonent bi Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla dimbalee mooy mu teel a dégager responsabilité ndax xam nga seen maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu dafa wax ni borom bi subhanahu wa taala moo wax yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndi ko ñi fi jaar ñépp mu ni ko sosal nañu leen sosal nañu muusa sosal nañu isa Eh, isa sosal gi ñu ko sosal ba borom bi subhaanahu wa taala laaj ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummi ilaahayni min duunillaah qaala subhaanak maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bi xaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik innaka anta alallamu alxuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudu allaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim fa lamma tawaffaytani nag kunta anta alraqiba alayhim wa anta ala kulli cheyin shahid sadaqa allahu alazim keroog bi ko borom bi subhanahu wa taala waxee ni ko ndax yow yaa wax ni yow ak sa way jur wu jigéen ëpp ngeen ci nit waaye xam nga Isa ñaari baat ya mu tont mooy baatu subhaanaka ja ak baatu rabbi wa rabbukum ja layil na Isa seetal na ko waaye yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag li ko borom bi subhaanahu wa taala wax mooy bul xaar bañ teg la tuuma nga koy soog a teggi mu ni ko teggil ba nañ la koy teg comme ñu ngi lay tëru teggil ndax kuy tëru kuy teggee ci ay kon qul innama ana basharun mithlukum yuuxa ilayya waaye gis nga dafa nekk aaya bu jaratee mooy basharu mithlukum ja ñu bañ nga réer ca bashariya ba ndax xam nga dama dégg góor gu tedd gi ak Seyid Mouhamadul Moustapha Sy mu wax ci wàllam moom yónent bi Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bashariyatuhu ruuxul bashariyati kulliha moo tax bu nekkee basharu mithluna it ñu bëgg nga def attention ndax muhammadun basharun la kal bashar ndax mooy saaxib alxaqi rabbaani waaye góor gu tedd gi a sayid muhammadul mustafa wax ni walxaq huna huwa alwaxy xaytu la ruuxu alamin wala ruuxu alqudus bal almawla azza wa jalla faqat fa awxa ila abdihi ma awxaa wa dalika fi lahdi alawal wa fi aalami alarwax summa jaa alahdu althani xaytu kaan alrasulu fi hada alahd talaat alxaq bilxaq xaqan sayidu rasul ma kadaba alfuaadu ma raa wa dalika bi basarin kaana makxuulan bil anwaari alqudusiya xaqan ra'aahu bil ufuqi almubin wa dalika bi jasadin muxaatatin bi absaadin rahmaaniya shahida muhammadun min dalik shahaadata alxaq ra'aytu rabbi bi ayni wa qalbi mimma jacala qurrata aynihi alsalaa wa tazawwadi attaqwa fa in lam tastatic fa min alsalaati ala annabii tazawwadi kullan numiddu haula wa haula min ataai rabbik wa min shani hada al ataa alladi kana muhammadun ayna al maarif al aqwam fa ida kana alimu al gayb indahu mafatihu al gayb la yalamuha illa hu fa sayiduna muhammadun indahu mafatihu xazaini al ard wallati qad kafalaha ala bni yaqub lida kaana yuusufu alayhi salaam xafidan wa alima xafidan ala almabaati aliman bilxibraat kon nag walawlaa kaana rasulu sayiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam la kaana banu aadam waaw la kaana banu aadam nabaatan hashiman tadiruhu riyaax wallahu ambatakum min al ardi nabata kon nag le plus excellent des créateurs Vers qui chercherai-je un refuge si ce n'est que vers toi lorsque arrivera la catastrophe universelle waaw waaw yaa akramal xalqi waaw maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli lxaaditi alamimi walan yadiqa rasul allahi jaahuka bi ida alkarimu taxalla bismi muntaqimi mu mel na kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teggil na boppam tuuma waaye Seyid Cheikh Ahmed Tijani moom ba mu teggilee boppam tuuma mooy keroog ba mu waxee ni ida samictumu anni shay'an fa zinuuhu bi miizaani shara fa maa xaalaf fa maa waafaqa fa xuduuhu fa maa xaalafa fatrukuuhu te la Seyid Cheikh Ahmed Tijani teggi leen boppam tuuma waaye xam nga yenn saa yi nga gis ñuy wax ci wàllu Seyid Cheikh la nga leen di yërëmee mooy xëy na dafay wane seen ñàkk a dégg ndax xam nga li ñuy tudd ci xadratul jumaa ces derniers temps mel na ni coow li xaw na ci bare waaye gis nga ci anam bu gën a gàtt loo xam ni fii ba Makka kenn du ko fi wenti mooy gis nga xadratul jumaa Sayid Cheikh Ahmed Tijani Cherif li gën a simple mooy ñetti xaqaayiq la ci dajale ci benn takkusaan mooy xaqiqa bu njëkk ba ca Sayid Cheikh Ahmed Tijani dajale mooy sadaqa allahu alazim xaqiqa bu ñaareel bi ci Sayid Cheikh Ahmed Tijani dolli mooy wa balaga rasuluhu almustafa alkarim xaqiqa bu ñetteel bi ci sayid cheikh ahmed tijani teg mooy wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mawlana min alchahidin te boobu malaayika yee ko moom ci nan mooy lu jiitu amuk nit lan la malaayika yi waxoon atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbixu bi xamdik wa nuqaddis lak lu leen borom bi subhanahu wa taala tontu woon mooy inni alamu ma la taalamuun mooy dañuy bañ ki nga bëgg a amal boo ko amalee mu yàq kaw suuf waaye borom bi subhanahu wa taala lu mu leen waxoon mon savoir est au-dessus de votre raisonnement inni alamu ma la taalamuun te ku ne xam ne ni daje yu mel nii it tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi idni rabbihim borom bi subhanahu wa taala dina may malaayika yi ñu di ko assister malaa'ikullahi laa ziltum min alkuraba xafat bi chamcikum tuuba liman xadaru ñu assisté ko gis ni raas ba ñu doon wax borom bi subhaanahu wa taala amal na ci mbindeef yoo xam ni bu leen malaayika yi di ëppale yi ñett lañ leen ëppalee laa yakuluun wala yashrabuun wala yanaamuun waaye bu dul ñett yooyu keneen koo ci leneen lu ti doon boo leen ci jëlee lenn ngay mën a dégg ci ñoom mooy ma hada bashar in hada illa malakun karim ndax fa ka annahum fi dikri wal adabi alladi fi dikri min malai sama ruuxaani ñu ñëw gis waa kër Sayid Cheikh kon xam ni borom bi subhanahu wa taala sadaqa allahu alazim ci alamu ma la taalamun ja waaye wa ballaga rasuluhul mustafa al karim ci nan ndax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon te man ca araisul bayaan cheikh alhaj omar al fuuti yu indi na ko ci rimaax radiallahu taala anhu mooy dajale ñennat ci ay saxaab yi ni leen yéen ñépp nañu àndandoo yëkkati suñu suñu baaraam wax laa ilaha illa allah ñu àndandoo wax laa ilaha illa allah mu ni borom bi subhanahu wa taala kon la nga ma santoon def naa ko ndax baat bi ya taxoon nga yónni ma te baat bi am na ñu ma ko def ci ñoom ba ñu gëm ko kon la nga ma santoon def naa ko waaye sayid cheikh ahmed tijani al sharif al fatimi radiallahu taala anhu yaral maamam ñoo xam ni ku leen fekk ngoonu aljumaa ñu wër seen mbalaan xam ni wa ballaga rasuluhu almustafa alkarim malaayika yi yàlla waxoon alamu ma la taalamuun teg ci seen bët ñu ni wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mawlana min alshahidin ñetti xaqaiq sayid cheikh ahmad tijani dajale ko ci benn tàkkusaan waaw kon sayid cheikh ahmad tijani foo koy jamee duggaguñu ci waxtaan bi nag waaw dafa mel na entrée en matière rek la woon ndax dafa mel na ay njabootu Seyid Cheikh Ahmed Tijani ah ñoom fu ñu tase ngoon aljamaa rek il faut ñu béggalante ñaari baat ñett tabarakallahu ci li ñu am moo taxoon ñu wax ni kon bala ñuy dugg ci waxtaan bi rek ah tabarakallahu ñu jiital kàddu yooyu